communiqué bu ñu fësal ni ki dibeer ji kuréel gi ëmb organisation yi nekk ci société civile ngir dox tànk jàmm ñu ngi am njàqare ginnaaw bi njiitum réew mi dal di yëkkatee ay kàddu ngir dàqandi élection présidentielle bi bu ñu sukkandikoo ci bile plateforme décret bi nga xam ne moo ñeel corps électoral bi jëm ci élection bu présidentielle bu 25 février 2024 dafa dal di salfaañee article 31 bu constitution bi ak article 137 bu code électoral loolee jamono ji nga xam ne yore nu processus électoral bi samp nañ ci ay laaj yu bari mu Cissé Alioune Tine ak seeni ñooñ jàpp nañu ne bi la dogal mun naa am ay njeexital ci jàmm ak dal bi ñu nemmeeku ci réew mi waaye ñoom ñi ne ci bile société civile jàpp nañu ne lu mënula ñàkk la ñu dal di amal ay enquête yu xóot ci tuuma yi ñu teg ñeel processus bi nga xamante ne moom la ñu amalee vérification candidature yi waaye loolee warul tax ba muy am njeexital ci calendrier électoral bi loolu moo tax ñoom ñoo signé bile communiqué di ñaawlu dàq gi ñu dàq élection présidentielle yi ndax gis nañu ne lu ni mel nekk na ab dogal boo xam ne mën naa nasaxal démocratie ak bëgg-bëggu askan wi moo tax ñuy sàkku ci ni mu gën a gaawee ñu dooraat processus bi ñuy waajalee élection bi te ñu fixé délai yu ñu koy dooraat waaye lu ni mel fexe waxtaanee ko ci acteur yëpp plateforme bi di SOSP moom itam mu ngi sàkku ci njiitum réew mi Macky Sall ak candidat yi ñu amal dialogue bu sincère ñëpp bokk ca nga xam ne ay experts indépendant ñoom ñoo koy dal di jiite waaye tamit sàkku ci conseil constitutionnel mu jël ay responsabilités ngir ñu amal ay élections yu libre transparente te mu nag dal di dëppoo ak calendrier électorale ni nga xamee ni noonee la ko norme nationale ak internationale bëggee.